أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratu yunus tey saar bi di jeex ñuy jël ñaari aaye 108 109 ñaari aaye yoo xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir ba ca jiitu mooy taqrir anna al quran wa rasul xaq wal islaam xaq bokk na ci li ñuy jàng tey aaye yi di ñu saxalal ne alquran dëgg la kàddu yàlla la waxu yàlla tabaraka wa taala la gu mu wàccee jox ko jibril jibril indil ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam saar yi toll ci 114 saar mu wàcc diirug ñaar fukki at ak ñett moom téere bi mu ëmb dundinu jullit yi ci misaal tey bu fekkonte ne ab tubaab dafa defar benn appareil ci biir appareil bi ci kees gi dañ ciy boole benn notice benn feuille buy wone appareil bi boo ko bëggee utiliser laa budd nga tënku ci notice bi nga xam voltage bi nga xam appareil bi fu ñu koy taalee fu ñu koy fayee fu ñu koy chargé lépp lu nekk ci appareil bi da nga koy fekk ci notice bi loolu moom mooy alquranul karim yàlla ba mu ñu sàkkee ba pare daf ñoo booleeg téere boobu di alquran ñun bu ñu buggee xam fu ñuy tàkkee fu ñuy fayee fu ñuy baaxee sunu dundin nan la ñuy def ba baax nan la ñuy def ba du ñu nekk ay bokkaalekat du ñu nekk ak ñuy dund bidaa nan la ñuy def ba du ñu wuuteeg yàlla ak yonent bi sunu kon sunu tànk ak sunu dundin yëpp dañ koy teg ci téere boobu waaye mbokk yi appareil boobu bi ñu la ko yónnee nga daal di boxoñ téere kayit gi sànni ubbi appareil bi di jéem a jaay yow sa bopp technicien nga wala xam nga wala mën nga yàlla nag bu appareil bi jógee Amérique soo ñëwee boo ko branché ci courant bi lu muy njëkk a def day tàkk lu tax ndax sunu courant moo ëpp doole courant États-Unis ñun sunu courant ñaata la ah 220 voltage bi soo koy branché rek ay seconde nga di gis mu xeeñ soo yàggee tuuti mu lakk gis nga lu tax parce que utiliser woo notice bi soo ko defoon léegi mu ne la ah nangam lay jël 100 lay jël nangam xam nga 100 ak 200 léegi nag su ko defee yow yaay uti benn appareil boo xam ne moom mooy yokk courant bi wala mu wàññi ko wala mu yokk ko ba mu tolloog appareil bi soo ko ci branché mu daal di normal. waaye boo reppee ba jël ko ci rek branché ko direct day lakk loolu mooy sunu dundin tey dañoo ñëw sànni li ñu yàlla wax fële di dunde nu nu neex waaw kerewaat ay yeneen yoon kere ay tarixa kere kere kere ba mu kenn xamul ñaata tarixa ñoo nekk Sénégal ñu sànni fële yàllaa ko yonentam di dunde lu nu neex loolu tax sunu dund mënut a neex benn sunu diine mënut a jag ñaareel bi mooy sunu dundin sunu dundin du baax parce que ala yaalamu man xalaq wa huwa yàlla nee na man mi bind maa xam yàlla mi nu bind moo nu xam moo xam lan moo nuy baaxal mu daal ñu koy indil ñun nag bu ñëwee ñu sànni njubal yàlla fële topp lu njubal keneen dañuy sonal suñu bopp ak kooku nag ku mu mën a doon ci kaw suuf ku ñu topp njubam bàyyi njubal yàlla dañuy sonal suñu bopp li ñuy baaxal li ñuy jubal li yéwénal sunu dund yàlla wàcce na ko ci alquran yàlla bañ na ba ne kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaat ila nuur loolu rek doy na kon alquran dañuy jàng tey ne dëgg la war rasul xaq yonent yàlla muhammad dëgg la yàlla ko yónni loolu laam-laame amu ci waruñ ci sikki sàkka keneen waru rëy ci sunu kanam ci ay mbindeef mu ñu war a roy bu dul yonent yàlla muhammad nit ñi li ñuy bari bari bari bari yonent yi li ñuy bari bari bari boroom xam-xam yi li ñuy bari bari ñun jullit ñi kenn dong la ñu yàlla xolloo abubakar ku baax la wala wala ma laajaat abubakar ku baax la wala ah ku baax la umar nag Ousmane nag Ali nag waaye xoola ñoo ñëpp li ñuy baax baax baax baax yàlla waxul nañ leen xool kenn dong lañ yàlla xool la mooy kan laqad kaana lakum fii fi Abu Bakri fii rasulillah kooku dong lañ yàlla wax ne topp leen ko atiullah gis nga atiullah wa atiu rasul wa man yaasi llaha wa rasula faqad dalla dalalan baida wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam gis nga wa man yushaqiqi rasul min badi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nu wallihi ma tawalla képp ku wuuteeg yonent bi nga dem jaar beneen yoon bu dul yoonu jullit yi yàlla nee na ma bàyyi la ak yoon woowu ba ëllëg ba nga dajeg man kon yonent bi dëgg la yàllaa ko tànn am mbindeef la comme ñun xam nga tey bokk na ci ñun Sénégal lu ñu indil problème ñu jël nit yi diine yi ëppal leen ba kenn xamul luñ leen luñ dafa ne ñoom ay yàlla lañ am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne seen kilifa yi du ñu fanaan ci seen i kawlal du ñu lekk du ñu naan parce que ñoom ñoo leen won loolu ñoom ñoo leen won ne ñun du ñu lekk du ñu naan du ñu du ñu du ñu du ñu te du dëgg dañuy lekk di naan am ay soxna am ay doom ni ñuy dundee ñun ñoom noonu la ñuy dundee Muhammad Bachar yonent yàlla Muhammad mbindeef la xuliqa kama xuliqal bashar dañ ko bind ni ñu bindee nit ñi wa aasa kama aasal basar mu dund ni nit ñi dundee walakin xayrul bashar maa xalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin baynal wara ñi njëkk ñëw ci àdduna ku mel ni muhammad fekku leen fi ñi dem alaxira fekk ñu fa ku mel ni muhammad moo gën ci mbindee fii sallallahu alayhi wa sallam terewul da doon lekk di naan am ay soxna di toogandoog nit ñi yéen a ngi fàttaliku ne yonent bi doon na reer ak ay nit guddi guddi ci lëndëm benn waay daal di jàpp loxo soxnaam defe na yàpp la ay sa ne am na ku jàpp sama loxo keroog lañu góor ñi ak jigéen ñi di ñu détaché leen ci bool bokkatuñu ndab xam ngeen ne yonent bi alayhi salaam da doon soq est ce que xam ngeen lool da doon dëbb xam ngeen lool est ce que xam ngeen ne yonent bi da doon dëbb laa wax da doon dëbb est ce que xam ngeen ne yonent bi da doon fóot est ce que xam ngeen ne yonent bi da doon raxas est ce que xam ngeen ne da doon bale sallallahu alayhi wa sallam te nag moo gën ci ñëpp da doon war mbaam mbaam mbaam mos ngeen gis mbaam Dakar ah mës ngeen gis ministre bu war mbaam député président ah xalifa général bu war mbaam mës ngeen ko gis ah mës leen ko gis mës ngeen gis xalifa général bu war mbaam non mais vraiment da ngay laaj gars yi dañuy ragal quoi amul koo fi yóbbul mbaam na ko may naa la ko dara dara su lay tontu lay la lay wax loolu ñuy doy mbaam sallallahu alayhi wa sallam moom dafa war mbaam dafa dem ba kaw asamaan toog ak yàlla del siwaat di war mbaam dafa dem ba fu kenn demut dem na ba malaul aala ba ca yàlla fu kenn yeggut mu del siwaat di war mbaam yemu ci war mbaam de bal da cee togg nit yéeg ci kanam ne Abdullah ibnu Mas Abbas toogal ci ginnaaw allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ah moom dong moo tax gis nga melokaan yooyu ak jikko yooyu mu am moo tax yàlla mu ne ñu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana parce que yàlla moo ko jàpp préparé ko tagg ko yar ko defar ko ba mu baax ba mu nekk modèle yàlla indi ko teg ko sunu kanam yonent yàlla Ibrahima ku baax la ah ah waaye kenn mënu koo roy lépp Muusa ku baax la kenn mënu koo roy lépp Isa ku baax la kenn mënu koo roy lépp Nuux ku baax la kenn mënu koo roy lépp kenn dong lañ mën a jël ci moom lépp parce que moom moo def lépp Isa lu tax mënuñu koo roy lépp parce que amul woon soxna wala am na soxna ah amul soxna 33 ans la am dem kon kooku soo ko bëggee roy te nu mu doon yoree soxna ndax dina la ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ay soxna waxuma soxna ay soxna yonent yàlla Ibrahim kenn mun koo roy ci lépp parce que du woon buur yonent yàlla Muhammad buur la woon lan mooy buur mooy ku jiite du dañ doon jihaad yi ku nekkoon ci kanam soldaar la woon boo xam ne commandant boo xam ne général bu nekk ci kanamu armée bi jiite leen moom daawul wax gaa yi allahu akbar moo tax suñu kilifa yi war nañu jàngaat diine kilifa yëpp nag laay wax bàyyiwuma kenn dañu war a jàngaat diine sallallahu alayhi wa sallam mësta toog gaa yi di liggéey abadan buñ daan jihaad fu muy nekk uhud lan moo ko dal dañoo damm bëñam xuri ay oomam tuur deretam dóor ko ba kesk bi daal di dañ ci bopp bi pourtant mënoon naa toog fenn gars yi dem leen bismillah taxaw leen rek ma ñaanal leen xoolal badr keroog badr dafa tàllal yàlla loxo yi di ñaan allahu akbar ba kaala gi wadd kon mu ngi woon ci front ba Aboubacar jël teg ci bopp bi yonent bi ñaan kaala gi naawaat Aboubacar ne ko doy na yàlla du neenal sa ñaan moo tax yàlla mën nañu kii roy leen ko dafa amoon ay doom dundandoog ñoom ñu mun koo roy ci nan la ñuy yaree doom mu am ay soxna dundandoog ñoom ñu war koo roy ci nan la ñuy yoree soxna mu nekkoon ci jàkka ji di jiite ñu war koo roy ci ku nekk ak ay nit naka nga war a nekkee ak ñoom mu daan dem ci forom ba di xeex ñu war koo roy ku jiite ay nit ñu nekk sa ginnaaw xoolal da doon wax siiru sayra du ofaikum soo àndoon ak ay jigéen day jël ak ñi amul lu ñu war day jël ñoo ñu teg ci kanam mu jël borom gëléem yeeg fas yeeg mbaam yi ne leen nekk leen ci ginnaaw lu tax lu tax benn fas yi duñ sonn gëléem yi duñu sonn mbaam yi duñu sonn lu tax parce que doxinu nit ñi la ñuy dox amma bu fas yi jiitiwul lu xew yow boo toppee borom fas ak nga topp kuy dox ak tànkam même gis nga yenn saa yi nga gis papa ak doom wala yaay ak doom yooyu ànd papa ji fu muy nekk ah papa ji fu muy nekk papa ji ci kanam lay nekk doom ji ci ginnaaw lu tax parce que jéego papa ji moo gën a gudd jéego xale bi léegi nag xale boobu ndeysaan su mënta waaxu day sonn parce que papa ji amul xel mu ngi xëcc rek moom yoonam ci ki mu àndal ndeysaan ko xale bi moom moom du dox xale bi lu muy def day daw bu dee jigéen ñi sax moom xam nga papa ji sax moom jàpp na ci dox bu dee jigéen moom fële lay nekk daal gis nga yow bu ma la fekkee foofu xamul ne ndeysaan xale la àndal ak ku néew doole la àndal koo xam ne ay jéegoom yaatuwut dafa limité wu yow boo naan nii moom nii lay def yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam su àndoon ak ay nit day dox doxinu ku néew doole parce que loolu la dénkaane buñ mënee pousse jege si incha allah ndax yeneen mbokk yi buñ ñëwee ñu am fuñ topp ñu ñëpp ñu ñëw ndax espace yi fii yëpp am nay place ixwatal iman kon ginnaaw ba ñu xamee ne alquran dëgg la yonent yàlla muhammad dëgg la ñetteel bi ñuy jàng tey mooy al islaam xaq islaam dëgg la benn diine dong moo am ci kaw suuf mooy lislaam amul beneen benn islaam benn diine la am yàlla amul diine bu tudd nasaraani amul diine bu tudd yahudi amul yàlla benn diine la am inna diine inda allah al islam diine jooju ibrahima muusa isa nuux muusa mbooleem yonent ñoom ñëpp ci lañ doon dund ci lañ doon woote amul benn yonent bu ñëw ci kaw suuf te indiwoo lislaam kenn moo moo ci mujjee ñëw mooy yonent yàlla muhammad moo ko tëj keneen du ñëw ginnaawam donte ne Sénégal am nañ ay yonent ba am yonent yu jigéen ah wala wala te sax c'est pas la première fois ñu am yonent bu jigéen Sénégal bi ngeen nekkee ay sénégalais ba léegi di dund ñaata yonent yu jigéen ngeen fekkee yéen ma seet ndax yéen ay ma ay ay booy ngeen wala ay mag ngeen ah ñaara ñaara d'accord ngeen moo di jaay giraandu ak kii nu mu tuddati ah Seyda Zaman ay ndeysaan Seyda te nag Sénégal lu ngeen ci xamul ñoo fi dàq créature tur boo xam ne boo ko déggee rek daw wuyu ji xoola Seyda Zaman la ilaha illa dafa mel ne dañoo yor ay borom xam-xam yu dégg arab yoo xam ne dañoo leen di créer ay tur wala benn daal waxoon na ko mu ne si Sénégal tur yi yàlla tuddee ay nit ci alxuraan yëpp ñu ngi ci ñu ngi am ngeen ko ay daayira tur yi ci alxuraan yëpp soo ñëwee ci Sénégal di nga fa fekk ñu ko tudd ñu ko tudd te nag wuute lool ak ñooñu yàlla di wax ci alxuraan fan lañ fan ngeen gisee yonent bu jigéen ana suratu yusuf wa ma arsalna min qablika min rasulin illaa illaa illaa rijalan nuuhi ilayhim fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun yàlla nee na musuma yónni yonent bu jigéen waaw kon Seyda Zaman moom ku ko yónni ah buur bu toll na yàlla wax ci alxuraan man musuma yónni yonent bu jigéen ñu jekki-jekki mu ñëw di xiiru ma ne waaw ki moom di muy jàng alxuraan ba pare yor ay fóoyam commencé mais subhanallah yor ay déguisement nga gis ay paa yoo xam ne ay te Sénégal li ci garaaw mooy ku woote rek am ay taalibe dafa mel ni non c'est pas possible ku woote nag laa wax xoola jigéen ju woote na yonent laa nga gis ay kilifa toog ci baas bi nga gis ay nit commencé ko wuy di ko dëggal waaw waaw mën naa nekk yàlla yàlla mooy def lu ko neex waaw yàlla moom di lay di lay waxu ko daanu ci saret yàlla nee na musuma yónni yonent bu jigéen wala du alxuraan mas ngeen gis imaam bu jigéen te gis nga yooyu bu ñu ko bàyyee mu jàll bés la ñuy ñëw rek ñu gis nga ñëw ci jàkka ji rek fekk imaam bu jaxaw taaw na la li xaamal ñu julli ñoo am problème nag te fa lañ jëm parce que tubaab yaa ngi ubbi yoon yi xam ngeen France am na imaam bu jigéen États-Unis am na imaam bu jigéen xam ngeen loolu ah kon kay Sénégal nag bu France bu bu bu bu bu Amérique sojee France ti sóoli Sénégal lu ñuy def ñooy jënd musuwaar AGT bi ndeysaan benn sëriñ benn borom xam-xam ci Sénégal mu ne Sénégal qalbul muslim waaye wa lisaanun faransa nee na Sénégal xol bi jullit la mais làmmiñ bi tubaab la wax na dëgg de kon l'islam mbokk yi mooy dëgg ci kaw suuf amul benn diine lu ngeen fi gis organisation lu ñu taaral lu ñu capp cappal lu mu rafet rafet du dëgg ndax yàlla moo ko wax wa man yabtaghi ghayra al islaama diinan falan yuqbala minhu yàlla nee na ku jàpp leneen lu dul islaam kenn du la ko nangul lislaam boobu moom la ibrahima dénk njabootam isxaaqa moom la dénk njabootam yaquba moom la dénk njabootam wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum diin fala tamutunna illa wa antum am kuntum shuhada iz hadara yaquba almawt iz qala li banihi ma taabuduna min baadi qalu nabudu ilahak wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ñoom ñëpp moom lañ dénkaane mboolem yonent yi ku ciy faatu da nga naan sa njaboot nekk leen ci lislaam bàyyi leen caaxaan bàyyi leen caaxaan yi ngeen nekk nekk leen ci lislaam ba ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw kon lislaam mooy dëgg beneen ba ca tegu lu ñuy jàng tey ci aaya yi mooy taqrir mabda an al mar yashqa wa yas'ad bi kasbihi la bi kasbi gayrihi danañ jàng tey saxal gi islaam saxal ne nit la koy texeel ak la koy texeedil jógewul fenn lu dul ci moom ci boppam su fekkee fii nu toog am na ci ñun ku bëgg a texe te mooy ku bëgg a dugg àjjana yow yaa koy liggéeyal sa bopp su fekkee da ngaa bëgg a texee di dugg safara yaa koy defal sa bopp ñaamonam ñaamotaa ko yaronam yarotaa ko daanonam daanotaa ko li ngeen loolu kaay lekk nga ne lekkaaleel ma du sotti kaay naan nga ne naanaalaaleel ma du sotti ñëwal ñu nelaw kaay ñu tëdd nga ne noo boo demee nga nelaw sama wàll ndax nee na mën naa nekk jeex na takk alxuraan moo ne waan laysa lil insaani illa ma saa doomu aadama amul lu dul ay jëfam alxuraan moo ne kulli mri'in bi ma kasabat rahina alxuraan moo ne man amila saalihan wa man asa jeex na gis nga kenn mënta baax ba mbaaxam googu mu yóbbaale la yow munul nekk moom mu baax di jaamu yàlla yow nga nekk fële nekk ci lu la neex nga dee la comme ñun niñ ko gëmee fii loolu munta ne alxuraan moo ko wax wa laysa lil insaani illa ma saa suñu problème nag mooy dañuy bàyyi aaya yi di topp ay waaw diw kay moo ko wax waaw diw moom nee na ëllëg incha allah caabi ji moo ko yor fii ngay gis Sénégal ay nit yi njox caabi àjjana voilà gisu leen yéen ci YouTube bi ñu njox caabi àjjana gisu leen ko man de gis naa ko envoyé nañ ma vidéo yi waa ji ne man caabi àjjana Kaolack lañ ma ko joxee ba pare nga ne ma man dinañ ma wax caabi àjjana ma toog fii lu ma fi def ah tey jii buñ ma joxoon caabi fële rek si kii jas aéroport ba nu mu tudd kii foofu ah ah waaw foofu ñuy tamoon buñ ma joxoon fa benn caabi appartement ngeen demee dinaa fi ñëw tafsir muy loolu leen wax dëgg wax leen dëgg ñu jox la caabi àjjana na nga ñëw fi di lekk mbaxal ak dëxin nañu wax dëgg yéen tamit kenn mu ne diw bu muy bi muy bi muy ñëw àjjana maa ko teeru man maa dem jël fauteuil bi teg daan ñii nag man mii maa ko teeru waaw xam ngeen diw ñu ne waaw mu ne maa ko teeru biir àjjana maa ko tegal fauteuil bi woo taalibe yi ne leen mu ngi nii gis ngeen boobu wala gisu leen ko gisu leen vidéo boobu la ilaha illallah ba pare di fëgg dënn bi nag nan dem naa ba àjjana ñëwaat waaw fan la àjjana nekk xanaa ginnaaw raay ban àjjana nga dem ban waaw ñun suñu problème a ngi nii kon nit lu koy texeel ak lu koy texeedil moo koy defal boppam ñu jege si mbokk yi ngeen dimbali ñu ngir yàlla fi sabilillah ngeen jege si ndax yeneen mbokk yi mën a am place fii nii xanaa dañuy tere ko fi toog dafa am ko fa toog ne wala dafa am ko fa tàllal tànk ga di xool gaa yi ah mag ñi waaw mais mag ñi nañu xaw a xaw a xajal xale yi tuuti rek espace boobu yaatu na ndeysaan doomu aadama li koy texeel mbokk yi moo koy liggéey dangaa bëgg a texe fexeel nga jaar ci yoonu gaa yu texe yi fexeel nga jëf seen jëf fexeel ñoom niñ doon jaamoo yàlla nga jaamoo woonu yàlla su sa baay baaxee baaxoo amul njëriñ yonent yàlla nuux ndax am na ku ko gën doomam a nga safara luut ndax am na ku ko gën doom jabaram a ngi safara nuux jabaram a ngi safara xoola firawna ndax am na ku ko gën a ba bon firawna ku ko gën a bon ndax mu ngeen gis Sénégal ku romb dem ñu ne kii firawna lañ ko tudde lu tax loolu dafa bonoon pourtant jabaram a ngi àjjana kon mbir mi du problème mu papa du problème mu yaay du problème mu sant du problème mu nit mais problème mu lan la jikko la problème mu mbaax la sa bopp xoolal jabaru firawna nekk safara jaba a a jabaru euh, firawna nekk aljanna jabaru nuux nekk safara est-ce que loolu xel nangu na ko wala daraba allahu masalan lillazina kafaru yéen a ko jàng imraata nuuhin wa imraata luut te xoola yàlla li mu wax ci adresse yi kaanata taxta abdayni min ibadina waaye fa xanatahuma dañ leen a trahir dañoo nekkoon ci suufu ñu baax ñu trahir ñaar ñu baax ñooñu ñaar ñu baax ñooñu kan ak kan la nuux ak xoolal yàlla yemul foofu de mu ne falam yugniya anhuma min allahi shay la ilaha illa allah ñoom ñaar li ñuy baax baax baax yàlla nee na mënuñu jabar seen mënuñu jëriñ seen soxna yi tus la yàlla wax shay falam yugniya anhuma min allah shay yàlla nee na ñoom ñaar li ñuy baax baax mënuñu jëriñ seen jabar yi waaye léegi keneen nag am na Sénégal ku gën a baax nu am na ku gën a baax luut waaw nañ leen dellu si xel yi ñu bàyyi caaxaan yi man sama papa nangam la rek bu la neexee nga tëdd di nelaw te doo doo julli loolu ay caaxaan la laa la wax ku ñu nax ba nga dugg ci xumb xumb yeeg caaxaan yi bàyyi yàlla booy dee di dugg safara boo dee suba safara ngay yendu boo dee ngoon da ngay fanaani sikk amu ci ku yebu jéem a jaamu yàlla bàyyi fob yi ñu nekkee bàyyi caaxaan yi bàyyi xumb xumb yeeg nga xam ne dara amu fa dara lu dul lekk naan soo xumbal daw yuuxu zibile soo paree dugg safara jaana taag amul leneen amul leneen amul jaamu yàlla amul sellal amul azkar amul jàng alquran amul ixlaas dara amu fa góorgóorlu leen topp yàlla bàyyi fo góor góorlu leen topp yàlla loolu mooy waxu dëgg bi nit li koy texeel moo koy liggéey li lay texee dil yaa koy liggéeyal sa bopp alxayru laa yanfau illa li failihi wa charru laa yadurru illa li failihi lu bon du lor lu dul ki ko def lu baax du jëriñ lu dul ki ko def yàlla nee na fastabiqul xayraat njëkkate leen lu baax li jeex na tàkk ñeenteel mooy ñetteel mooy wujubu ittibaaul wahyi al ilahi li war ci ñun mooy ñu topp wahyu wahyu wahyu mooy lan mooy alquran mooy li yàlla wàcc ci ñun loolu nag topp ko dafa war lan moo ñu indil Sénégal problème mooy wahyu bi ñu bàyyi dégg naa benn imaam imaam bu tudd imaam Ndiaye def benn waxtaan ci benn seenu télévision bu tudd Sen TV ah déedéet 2S su ma juumalee 2S am journaliste bi laaj ko ne ko tarixa yëpp benn lañ mu ne ko déedéet tarixa yi duñ benn mu ne ko lu tax mu ne ko tarixa bu teguwul ci alquran ak sunna baaxul wérut TFM mais ay nit di ko woo téléphone di ko di ko saagaak di ko kereel yi problème ne ko lu tax muy wax loolu kon xanaa dafa am tarixa yoo xam ne teguñ ci alxuraan ak sunna Sénégal nga naan sàccee nga gis waay ji waa ji baa waa ji waa ji bàyyi bu mu xar bi te naan jàpp ma ko woon de man damaa taxaw nii rek bi ñu nekkee daara di jàng loolu yàgg na de dafa am benn paa bu daan sàcc ginaari daara ji boobu ginaar yi xam nga boobu ndeysaan Sénégal nu melowul ak léegi léegi yéen ginaar yi ngeen di lekk kenn xamul ginaaru lan la waaw yéen ginaar yi ngeen di lekk kenn xamul fu mu jógee kenn xamul lan ngeen di lekk boobu ñun lu ñuy lekk yëpp Sénégal la ginaar yi ginaar yi dëkk bi la ñuy lekk mbokk jullit yi daara ji taalibe yi dañuy dem ñu sarax leen ay ginaar taalibe yi dañuy yar ay ginaar daara ji fees del ay ginaar paa bi ndeke moom bu ñëwee rek day dem fële rek suy dugub ginaar yi bu ñëwee rek mu dugal ci saakam yóbbu te fajar lay ñëw nag parce que bu ñu yeewoo rek taalibe bu ñu yeewoo rek dañuy ubbi ginaar yi ginaar yi daw génn mbedd mi paa bi moom ndeysaan fii lay ñëw ci wetu stade bi rek suy ginaar yi bu ñu ñëwee rek mu jàpp dugal ci saak bi dem yoonam benn bis nag mu ñëw suy dugub bi di jàpp am benn maire bu ko gis daa dem ci waa daara ji mu nekk seen daara seen ginaar yi de benn paa nga fee toog ci wetu stade bi di ko jàpp rek taalibe yi génn ñëpp génn ñoo fekk mu toog gars yi ñëw rek commencé pes di dóor benn paa ñëw ne ko yow eh, ginaar yi ngay jàpp ne mu ne wallahi jàpp ma rek ñaari ginaar yëngatu ci biir saag bi gër gër gër ñu ne ko lu nekk fii mu noppi ñu ne lu nekk fii mu noppi ñu sotti ñaari ginaar génn daw ñu ne ko li nag mu ne wallahi ginaar yi dañ doon bëre ba dugg ci saag bi ne na ginaar dañ doon bëre quoi di vërëj vërëj daal di xeex dugg ci biir saag bi ah, rek benn paa pes ko ne yóbbu leen ko police léegi nag comme dafa tiit mu ne déglu leen kii lu mu wax ah dégg na yóbbu leen ko police te ragal na nit ñi dóor ko dóor yu métti mu ne déglu leen déglu leen gaa yi ne mu ne déglu leen kii lu mu wax ñu ne waa ji loo wax mu ne yóbbu leen ko police mu ne déglu leen def leen li mu wax parce que xam bu ñu ko yóbbee police après dañ koy bàyyi mu nekk ci jàmmam waaye bu ñu ko jàppee fii dóor ko bu paree day faju ji loolu mooy sunu problème nag ñun waaye Sénégal sunu problème mooy au lieu ñu topp dëgg gi fele la ñu sànni dëgg gi topp ay caaxaan naka la julli di gisee alxuraan yàllaa ko wax waxu yàlla la waxu yonent baa ngi nii nga bàyyi ko topp leneen yàlla moo ne nañ julli yonent bi ne nañ julli nga bàyyi ko ne man julliwu ma lii laay topp te lii mooy dëgg du ñu julli ñun mais ñun ci dëgg lañ nekk léegi lan mooy dëgg ah ñaata aaya yi wax ci julli moo nekk ci alxuraan ñaata aaya yi wax nañ woor moo nekk ci alxuraan ñaata aaya la yàlla wax ne nañ takk jabar yem ci léegi-léeg loolu yëpp ñu violé ko teg ko fële nekk ci leneen ba pare gëm ne loolu ñu nekk mooy dëgg li yàlla wax du dëgg ñun fan lañ jëm wala li may wax gisu leen ko ah gis ngeen ko waaw ma ne alxuraan nee na dañoo war a topp waxyu waxyu mooy alquranul karim waruñu topp leneen lu dul loolu waaye waxyu boobu li ko ëmb lan ak lan la alquran ak sunna bu wér bi alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu wér loolu lañ war a topp waruñu topp leneen ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum loolu lañu yàlla wax amul leneen léegi nag bu ñu toppee ma sàmba topp ma demba topp ay jigéen ah sunu sëriñ jigéen la sunu sëriñ di tàcc di feej dégg naa ñuy tagg benn sëriñ naan munul benn masala ci diine munul jàngale julli munul jàngale woor soo juumee ci julli munu ko defar xamul nu ñuy takki sëy xamul nu ñuy tuddee doom waa léegi lan mooy sëriñ ma defanoon sëriñ mooy ku mën a jàngale wala ana sëriñ si fii fi am nay sëriñ waaye yéen sëriñ si ma defoon sëriñ mooy kuy jàngale diine waaye sëriñ moo xam ne jàngul alxuraan munul julli at nga dégg keneen ki naan man moom julli dara laa ci mënul mënuma julli laa ilaha illallah ay Sénégal jar nañoo yërëm te ñooñu di wax yépp ñaata nit ñoo nekk seen ginnaaw ñaata lañ ñi leen topp ñaata lañ léegi ñooñu ñëpp ci lan lañ leen di lu leen di def ci lan lañ leen nar a jàngal lan lañ leen nar a fan lañ leen nar a yóbbu ndeysaan ñun jar nañoo yërëm wallahi ñun jar nañoo yërëm yonent bi doon na wax ne innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin fa ida waqa aleykum sayf lam yurfa ila yawmi alqiyama sallallahu alayhi wa sallam li ma ragal ci yéen ñu ne ah mu ne ay njiit yuy réeralaate mu ne gis ngeen deret bu tàmbalee tuuru ci yéen jaasi yi di dal mu ne yowmal xiyaam rek dootul jeexati te tey loolu lañ toll ndeysaan waaw yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko ñeenteel mooy fadilatu sabr wa intizaaril faraj min allah dañoo dénk ci saar yi ñuy jàng tey ñuy muñ di xaar yàlla tabaraka wa taala indi indi solution nit du gaaw a découragé def naa def naa aw ma pare naa ci dem naa jëluñu ma pare naa ci ah wax naa ak moom tontu ma pare naa ci déedéet as-sabru wantizaarul faraj dañ ñoo digal nañu muñ te xaar résultat bi ci loxoy yàlla loolu la ñu sant jullit du découragé jullit du yàccaaral jullit du yaafuus jullit du yambare jullit day am imaan ci yàlla am pas-pas bu dëgër bi dem defi li mu war a def waaw jullit dafay mel ne baykat su asamaan xiinee mu dem ruuj ba tool bi set mu toog xaar mu taw su tawee mu wóolu yàlla dem jël cent kilo gerte cent kilo dugub cent kilo mboq bi mu doon dundee mu ñëw gas suuf si ba mu xóot suul ko ci ñibbi kan la ko dénk ah allahu akbar xoola wóolu googu mu wóolu yàlla cent kilo dugub mu suul ko cent kilo du gerte mu suul cent kilo mboq mu suul dem ñibbi li mu doon dunde këram la ñëw suul dem ñibbi ndeysaan ne ne yàlla ah yaa fa nekk de allahu akbar dénk ko ma sàmba dénk toogu fa di garde xoolal moo tax boo wóoloo yàlla rek yàlla ñëw wa man yatawakkal ala allahi waaye xool leen li nga xam ne dénkuñu ko yàlla day gis ku gaare benn parking ubbi benn kër wala marché ñu wut ay garde après marché bi ah ñu sàcc ko wala ñu lakk ko nga gis parking oto yi waa am na am na am na ku koy garde ñu ñëw dajji oto yi sàcc magasin yi ñu ñëw dajji sàcc atelier yi ñu dajji sàcc parce que ay nit lañ ko dénk damaa dem risaatool defi benn conférence ma ñëw ndeysaan kilifa ga nga xam ne moo fa nekk nga xam ne bokkoon na ci ñi taxoon ma dem mu may nettali benn xissa ci ginnaaw tool yi damaa taxaw ci fiñ ma dalaloon ma gis tool yi ci ginnaaw ndeysaan ma ne ko ay yéen de seen ginnaaw fi ay tool la léegi nag ñuy waxtaan ci tool yi rek ba mu may nettali benn tool boo xam ne waa ji ngandum tool bu toll ne stade la yor waaye tool bi benn photo moo koy garde benn photo sëriñ kilifa bu ngand boo xam ne bu taxawee yaa ngi moom yéen ay tolloo mooy garde moo koy garde ngandu photo yooyu photo baa ngi toll ne buntu néeg buy wàcc rek moom lay samp ci diggu tool bi rek dem suñ ko nee lii nag mu ne sëñ baa koy garde benn bis mu ñëw mu fekk sàcc nañ sëñ bi benn waaye jaar na fa ba yenu ko yóbbu ko benn waaye jaar na fa ba yenu ko teg ko ci mbaggam yóbbu yóbbu sëñ bi to ceer na woni mu ne ɓimɓi e nana yaha ceer na nana yaha dëkk ñoom booy bale la ndeysaan kon incha allah aaya yooyu la ñuy jël tey ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين jazakumullah xeyran barakallahu fik xel nañ yàlla fay la yiw mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na yow muhammad alayhi salaatu wassalaam qul waxal yaa ayuha nnaas nidaun am yashmulu lbashar kulliha woote la woo xam ne dafa làmb doomu aadama yëpp ndax yàlla lan la wax yaa ayyuhan naas bàyyiwul kenn yaa ayyuhan naas ndeysaan léeg-léeg nga dégg yenn tafsir quraan yi buñ nee yaa ayyuhan naas ñu ne ee yéen waa màkk wala ñu ne yaa ayyuha allazina kafaru ñu ne yéen waa màkk yaa ayyuha allazina amanu yéen waa Médine ana waa Sénégal moo tax boo waxee ñu ne ñun bokkuñ ci yaa ayyuha naas bàyyiwul kenn ee yéen nit ñi lan moo tax yàlla ne yaa ayyuha naas baatu naas lu muy tekki mooy ee yéen fàttekat yi fal insaan mahalu nisyan fa inna awalu nnaas awalu nnaas wa laqad ahinna ila adama min qablu fa nasiya ki njëkk ci nit ñi moo njëkk a fàtte muy aadama lan la fàtte wala taqraba hadihi lshajara fa takuna min alzalimin fa azallahuma alshaytanu anha fa axrajahuma mimma kana fi wa qulna ahbitu baadukum li baadin adu wa lakum fi l ardi mustaqarun wa mataaun ilahin waaye la ko ca génne mooy fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alay innahu tawaabu rahim loolu ko ci génne moom dafa tuub dellu ci yàlla ginnaaw ba mu tarxisee yaa ayuha nnaas yéen nit ñi ñëpp kon ñun ñëpp dugg nañ borom bi mu ne xat ca dëgg-dëgg jaakum ñëw na ci yéen dikke na leen lan alxaqu dëgg allahu akbar fan la dëgg gi jógee mu ne min rabbikum bàyyi ko seen borom ñun lan la ñëw lu tax ngeen ñëw tafsir lu tax ngeen ñëw tafsir da ngeen ñëw di seetaan si la ma ngeen ñëw dëgg ngeen soxla dëgg rek moo ñu fi indi leneen indi wu ñu fi qad jaakum min rabbikum ñëw na jóge ci seen borom lan alxaq dëgg te yàlla wax na ci alquran yonent bi alayhi salaatu wasalaam toppal dëgg alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin dëgg mooy li bàyyi ko ci sa borom bul bokk ci sikki sàkka léegi lu tax yàlla mu ne nañ topp dëgg ñun ñuy topp caaxaan ndax yàlla waxuñu topp leen dëgg yaa ayyuhan naas qad jaakum ñëw na ci yéen lan alxaqu dëgg kun lil xaqi abdan wa abdul xaqi hurran nekkal jaamu dëgg nit dëgg rek moo la war a yitteel yow sàmbaak dembaa ko def ak nangam nangam ak ñee ñoo ko wax ak sa yoon bu mu ci nekk xoola Sénégal bu weer di feeñ am na ko xam da ngay ñëw ne ko weer feeñ na de mu ne fan la wee fan la nga ne ko sàndaga mu ne wët yow da ngaa yab nit ñi quoi kii ñëw ne la weer feeñ na nga ne ko mu ne la Sébikotane daal nga ne ko waa yow kële nga ne ko weer feeñ mu ne fa nga ne allahu akbar suba di suba di damay woor parce que wax nga ko benn dëkk rek waaw loolu mooy lan xanaa du dëgg rek lañ la wax dëgg ku weex moo ko ñuul intéressé wu la ku weex moo ko wax intéressé wu la xale moo ko wax intéressé wu la mag moo ko wax intéressé wu la xam nga lu la war a intéressé ndax lii dëgg la su fekkee dëgg la nga jël jeex na ndax dëgg yàllaa ko moom dëgg kenn moomu ko fa maza badal xaq illa dalal yàlla nee na ginnaaw dëgg réer rek moo fa nekk kon soo bàyyee dëgg rek ci réer ngay nekk sikk nekku ci kon boo buur bi nee na qad jaakum ñëw na ci yéen yaakaar naa loolu moo nekk seen téere yi de man de loolu moo nekk sama téere wala man damay tëb min rabbikum xoolal borom bi li mu ci teg mu ne fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wallahi ku jub sa bopp nga jubal kon dëgg gi soo ko fi bàyyi rek alku maanaam boo gisee dëgg gi nag nga jub fa man ihtada képp ku jub dégg-dégg googu kan la ko defal fa innama yahtadi li nafsi boppam la ko defal defaloo ko ma sàmba defaloo ko ma demba defaloo ko sa papa defaloo ko sa yaay defaloo ko say soxna defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal lii leer na wala leeru ah wala lii dañ ko commenté commentaire la ay texte la yu ne weng leer nañ fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ku jub sa bopp nga jubal waxoon naa ko sànq ci tukuloo lekkal ma du dem na nelawal ma du dem am jabar sax ñu ne la sa jabar a ngi nga ne xeexe bisimilah nekkal ma ci maa ngi ñëw du dem de te loolu nag xoolal nanguñ ko de ku la ne abal ma sa jabar ji ya doo si doo simmeeku bay xeex ak moom wala ku la ne abal ma sa jabar booy xeex ak moom doo simmeeku benn waay kay moo lay wax yow danga may kii nga ne wax xaar ma dem simmeeku ji ñëw parce que ay affaire yeneen la waaye abal ma sa jabar doo simmeeku fii ngay dee léegi waaw waaw te bu ñu la ne lan moo leen boole doo ko nettali waaw dégg nga li ma wax ñu ne la lan la nga daal waaw xam na li ma wax doo ko nettali waaw da nga naan rek li ma wax ñu naan la waa lan la la wax nga naan li ma wax xam na ko gis nga nañu yàlla dafa sutura dañ leen dégg alxuraan lii wax yi ni ma ko tiimee ngeen ko tiimee même ku yor kaamil bu ñu traduire en français nii la ko yàlla waxee waxu yàllaa ngi nii bu ñu ko bàyyee dañuy sànku suñu bañee sànku nag yàlla nee na topp leen dëgg bu bàyyee ko ci man yàlla nee na ku jub sa bopp nga jubal kon tey jii li dëkk bi ku jub sa bopp nga jubal léegi ñi fi ñi fi ñi fi ne maan maay yóbbaate àjjana nag kon ak aaya bi nu ñuy def mbokk yi yàlla nee na waman dalla déglu leen fa innama yudillu alayha ku sànk koo sànk sa bopp wallahi soo jubee sa bopp soo sànkoo sànkoo kenn sa bopp nga sànk ku tëdd ci kaw lalam deux heures du matin jaaxaan di saw naan maa nga ca duus ba ba mu yeewu ku jaaxaan di saw koy nax sa bopp ku tëdd di nelaw booy kaañ liggéey nga naan non man yaakaar naa ne temps yi asamaan si dina taw moo nin quoi il pare xiin bi côté bi bu tawee rek booy ay billets ñooy wàcc bàyyil ma góolu ko foofu quoi kooku loo koy wax soo amoon benn xarit nga ni ko kañ dem liggéey mu ne la non temps yi asamaan day taw xaalis loo koy wax da nga koy xoolaat yow la wax mu ne la non temps yi gis nga côté bee wóor na got day taw moonin laa la wax bàyyil ma dem foofu quoi da ngay dem ci yaayam ne ko waa sa waa ji moom man temps yi comprendre ma ko de waaw gis nga parce que xam nga ne waaw léegi naka lañ nit ñi di jaamoo yàlla yow nga toog fee nekk ci caaxaan di fo loolu nu mu nekkee naka la nit ñi yeewoo fajar di julli yow nga tëdd di nelaw naka la nit ñi di góorgóorloo ci seen Qur'an góorgóorlu ci seen diine yow ngay caaxaan ba pare yaakaar àjjana yàlla ah bu ñu nax suñu bopp waay ah borom bi nee na. wa man dalla képp ku sànk fa innama yu dillu alayha sa bopp rek nga sànk mu ne wa ma ala wa ma ana alaykum bi wakil allahu akbar man yonente alayhi salaatu wasalaam man day chargé wu ma ne man maay seen responsable ci loolu alhidaaya chargé wu ma ko wa innama ana muballig wa nazir man yonent bi chargé wu ma kenn ne maa lay baaxal wala maa lay réeral déedéet man xam nga lan laa man yonent bi man damay waaraate damay jottali mu ballig mooy kuy jottali nazir mooy kuy xuppaate di waaraate di fàttali yonent bi loolu kese la léegi nag yonent bi bu la jottalee fàttali la nga lank lim la jottali nga jël teg fee parce que baay moo doog baay Demba ak baay Samba nee nañ la nga topp baay Samba baay yonent bi boo demee àllaaxira di nga xam ne Baye Samba ak Baye Modou ak Baye Paate ak Baye Ngañ amuñu fa dara waaw àllaaxira kenn amu fa dara xataa yonent bi amu fa dara su amoon dara du taxaw ca xeeru Makka daan ne waa Saba ñëpp taxaloo muy wax yaa am yaa yaa yaa ba mu gestu gis Fatima mu ne ko yaa Fatimatu bintu Muhammadin salini min maali ma shiti fa inni laa ugni anki min allahi shay Fatima mu ne labbayka baay mu ne ko jaamul yàlla sama alal laaj ma ma jox la lépp loo soxla fii ci àdduna waxal su ma la ci mënee dimbali ma dimbali la soo jaamul yàlla ëllëg yowmal xiyaam mënalu ma la dara. yaay Aysa laaj na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent ndax di ngeen ñu fàttaliku ëllëg mu ne ko Aysa ñetti place kenn du fa fàttaliku kenn loolu yàllaa ko yawma yafirul maru yawma yafirul maru min axi bi ma nekkee xale mas naa wéeru ci benn fenêtre guddi jàng ba ñu paree rek ñu dem di doxantu ji ndeysaan léegi nag ñu ñëw ci benn kër rek ñu toog ci buntu buntu fenêtre di di di di di di waaraate quoi di jàngale nii quoi di waxtaan. ñuy wax nag ci affaire yowmal xiyaam am na ku mun dara ku mënul dara ma yëkkati aaya bi rek waa ji ubbi fenêtre bi na ma sa aaya bi bu mu yegg de. ma ne yow ma yafirul mar umina axira waa ji ne kërëj fenn saaya boobu bu mu yegg egg la ji leen ko fële ñu daal di jóg ndeysaan yow ma yafirul mar umin axi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani lu tax lu tax yàlla ne li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni alxuraan moo neex sa ta ta ta li kulli mri'in kenn ku nekk ci ñoom ñu ne ah mu ne keroog yawma idin yughni dafa am problème bu ko doy ndeysaan waa jaa ngeeg saako problème toog la ilaha illallah yàlla ñu yàlla wallu ëllëg yàlla nee na wattabi toppal yow jullit maa yuuxaa ilayka li yàlla wàcce ci yow li la yàlla wax yu mooy lan topp leen loolu wax yu wax yu mooy lan alquranul karim sunna yonent topp leen loolu waa lëkk lañ fi bàyyee wax yu topp leneen wattabi fii lu lan la fii lu amr majzumun ala sukun wala sukun moo ne ci fin bi wattabi toppal maa yuuxaa ilayka li yàlla wàcce ci yow gis nga soo ko toppee ba pare mu ne was biir muñal gis nga jàpp leen ci dëgg bi te muñ bu yeboo ñu ne leen ay ips bu yeboo ñu ne leen ay bu yeboo ñu ne leen ay ibr ay ib bu yeboo ñu ne leen ay abu bu yeboo ñu ne leen ay lu nekk lañ leen ko wax jàpp leen ci was biir boo jàppee ci dëgg muñal nga dem waaw da boo yow da ngaa yenu diine ji yow da ngaa tàng da ngaa metti da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa d'accord fas biir muñal ah hatta yaxkum allah ba yàlla indi atteem ëllëg yowmal qiyaam dinañ xam ana kan moo nekkoon ci dëgg wala kan moo nekkoon ci ay caaxaan fas biir muñal muñ leen hatta yaxkum allah ba yàlla atte te yàlla bu mbiram ñëwee rek mu leer wa huwa moom yàlla xayrul xaakimin ñi atte fii ñii naan ay juge fii nangam nangam suñu juge cere yi danañ xam ne ëllëg yowmal qiyaam bu ñu taxawee ci kanam yàlla alaysa allahu bi ahkamil xaakimin danañ xam ne waxoo moom yàlla xayrul xaakimin dinañ xam ne ëllëg yowmal qiyaam inil xukmu illa lillah moom dong moo war a atte ndax moom mooy dëgg loolu mooy sunu darsu tey suuratu yunus fii la jeexee bu nu yàlla dimbalee insha allah ba samedi bii di ñëw ñu ngi jël suratu xuut muqaddimaam ñu ñaan yàlla mu may ñu fekke lañu lañu la ñu wax dëgg suñu làmmiñ dëgër ci ci suratu yunus ñoo ngi ñaan yàlla yal nañu ko yàlla bindal ay tiyaaba lépp loo xam ne suñu làmmiñ tarxiis na ko ci suratu yunus ñoo ngi jéggalu suñu borom subhanahu wa taala di ko wax ne in aradtu illa al islaaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh